أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ba tey ci suratul baqara di ci jël tey ñetti aaya ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala tey dinañ jël aaya 275 276 ak 277 mu nekk ñetti aaya yu ñu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal juróom-ñaari mbir bi ci njëkk borom baa ngi leeralal ci aaya yu njëkk yi mbugal gi nga xam ne dina ko mbugal ëllëg yowmal qiyaamati kii lekk riba bépp doomu aadama bu daganal riba di ko lekk bañ a tuub ba dee dajeeg yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na dina la mbugal loolu mooy tomb bu njëkk bi ñuy jëlee ci aaya yi ñaareel bi mooy tahrimu riba yàlla dafa araamal riba suñ ne mbir araam na mooy yàlla dafa dafa tere ku ko def buggul ku ko def wa kullu maalin bépp alal boo xam ne dafa ñëw jóge ci riba borom bi tëkku na boroom borom bi tëru na boroom borom bi dina mbugal boroom te tëkku na ko tëkk bu dëgër waadun shadid tëkk bu dëgër la borom bi subhanahu wa taala tëkku gaa yooyu nga xam ne waa jooju nga xam ne guddi ak bëccëg mu ngi ci riba ñetteel mooy borom bi subhanahu wa taala mi ngi melal bëgg bi nga xam ne bëgg na ko moom yàlla subhanahu wa taala ay soppeem ay xaritam wa annahu taala yuhibbu awliyaahu yàlla bëgg na ay waayam ay xaritam ñi farag moom ñi allié jëm ci moom wa hum ahlul iman bi mooy ñi ko gëm ñi ko topp waaye borom bi sib na bañ na képp koo xam ne noonam nga kan mooy noonu yàlla muy yéefér kan mooy noonu yàlla mooy defkatu bakkaar kan mooy noonu yàlla mooy lekkatu riba kan mooy noonu yàlla mooy képp ku jóg di def bakkaar yu mag yi yàlla tere yow ci noonu yàlla yi nga bokk loolu dinañ ko jàng ci aay yi nekk sunu kanam ñeenteel li ñuy jàng ci aay yi mooy daganal gi yàlla daganal njaay ci ay yoon yi nga xam ne moom la ko yàlla tëral ci charte yi ko yàlla teg ci téere yi nga xam ne boroom xam-xam yi jàngale nañ ko ci téere fiq yi loolu dinañ ko jàng insha allah ci aay yi nekk sunu kanam juróomeel mooy képp ku tub ci riba man taaba min ar riba tuqbal tawbatuhu képp ku tuub ci riba yàlla dina nangu sa tuub képp ku doon lekk riba nga tuub allahu subhanahu wa taala dina nangu sa tuub waaye yàlla dina la daganal li nga dajale woon ci alal ju njëkk avant ngay tuub boo tuubee yàlla dina la daganal alal boobu yàlla dina la ko bàyyee charte yooyu nag charte tuub yooyu dina ñëw ci kanam insha allah ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala juróom benneel mooy yàlla subhanahu wa taala moo moo tëkku waidun yàlla moo tëkku lan la tëkku yàlla mu ne képp kuy lekk riba wala képp kuy dajale riba man yàlla dinaa ko daaneel lu mu dajaloo lu mu bari bari bari bari lu waa ji am doole lu mu am kattan lu mu am puissance bu dee état yàlla dina ko bumax mu daan bu dee borom alal yàlla dina ko daaneel bu dee borom doole yàlla dina ko feebarloo moo tax riba amul mujj jàng leen histoire rek bu leen sori sax ñëw leen Sénégal rek képp koo fi xamoon muy lekk riba démb tey daanu na parce que yàlla moo ko wax loolu dañ koy jàng ci aaya yi nekk sunu kanam noonu yàlla naa ne loolu noonu yàlla lancé défi ne lekkatu riba du dem noonu la yàlla ndeysaan ci yërmandeem ci kàttanam noonu mu ne damay màbbee riba noonu la ne damay damay yëkkati sarax ak sarax bi lu mu tuuti tuuti tuuti yàlla daf koy yëkkati daf koy dolli daf koy barkeel loolu danañ ko jàng ci aaya yi juróom-ñaareel mooy busra bashara allahu taala li ahli limaani walamalu saalih ma iqamatihim lissolaa wa itaihim lizaka yàlla dafay bégal ci aaya yi nekk sunu kanam kan lay bégal ñi gëm yàlla yàlla da leen di bégal ñii def farateeg naafila yàllaa ngi leen di bëggal ñiy jëf-jëf yu baax yi yàllaa ngi leen di bëggal ñiy julli yàlla dina leen bégal ñiy joxe azaka yàlla dina leen bégal kon ñii ay nit lañ yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala dina leen bégal ëllëg kon mbokk jullit yi juróom-ñaari mbir yi mooy mbir yi nga xam ne insha allah ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala moom lañ fas yéenee jàng tey ci ñetti aaya yi nekk sunu kanam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات ۖ والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول المولى جل وعلا بوربنين الذين الذين سايكو ديغي بروم خام خامي نeenañ ismu mawsul la lil aqil ñi am xel la yàlla di waxal borom bi nee na alladina gaa yi nga xam ne yakuluuna ñooy lekk ar riba riba riba ci olof mooy ndollent aziyaada ndollent ñooñu naka la ñuy lekkee riba dañ koy jël di ko dolli di ko lekk ci seeni biir yaakulunahu fi butunihim wala ñu bañ koo lekk ci seeni biir dafa am riba bu ñuy tuddee riba ñaata façon la xaaral ma génne sama kado yi indi naa tey ay kaamil de riba ñaata xeet la ñett i ay garaaw lañ de waaw ñaar ban ak ban la kan moom moo mën a wax ñaari riba yi kon na ko yëkkati loxo ci ginnaaw de bismillah ah waaw riwal fadli ak riwal nasiba kan moom may définiral ñaari yooyu de dinaa ko jox kaamil bi riwal nasiba mooy lan ak riwal fadli mooy lan ah yéen da ngeen daan riwal fadli ak riwal nasiba ba pare te si loo ko laaj di ko toot riba ñaari xeet la nasiya ak fad benn bu nekk mooy lan ah tafadal
siyaar bi nga lem ne nit ki yow naanee délai bi délai bi jot indiwul Mhm.
nga ne ba su dee délai bi jot na indiwoo damay yokkaat si kaw très bien am jox ko kaamil bi boobu mooy riba riban nasiya mooy da nga leble ki nga lebal ngeen waxante benn charte ne bu weer dee dama lay fay weer dee waa ji ñëw na waaye amul lu mu fay nga ne ko dama koy doubler léegi garaawul amul problème neex naa régler waaye dama koy doubler 10 000 la woon léegi dañ koy def 15 000 cinquante mille la woon dañ koy def cent mille cent mille la woon dañ koy def deux cent loolu riba la loolu dafa xaraam am na ñoo xam ne sax seen doom lañ ciy teg loolu mooy ribal jahiliya ca caddogo loolu lañ daan def riba bi day nekk day jóge cinq mille di dem di dem di dem di dem ba nekk million nga xam ne waa ji du ci mën a génn ba yowmal qiyaamati yàlla loolu lay tëkku mu ne wa xaqiqatuhu dëgg dëgg riba mooy li ñu wax léegi mooy an yakuna lahu an yakuna laka ala al mar'i dayn right mooy nga am nit ci nit bor benn waay yoral la bor fa ida xalla ajaluhu léegi nag digg bi ngeen waxante woon yéen ñaar bu weer bi dee la wala ñaari at wala digg bi jot na waaye waa ji walam yaqdir ala tasdidihi munu ko fay taqulu lahu isan axir wa zid léegi xam nu ñuy def munu ma laa fay ah da nga may mayaat beneen dat beneen délai waaye nga ñu yokk ko loolu baaxul riba la dafa xaraam ci lislaam loolu la ñuy wax ribal jahiliya tey nee na riba bi moo am ci banque yi moo tax jullit yi say war a mooy te ndiku lëggéeyeg jëflanteeg banque yi ndax riba yàlla da koo tere baaxul def xaraam gis ngeen Europe sax riba moo tax ñu daanu léegi ñoo ko Amérique ba tey ñu ngi jël seeni experts yóbbu leen dëkk bu tudd Indonésie euh, Malaisie Malaisie pour ñuy jàng système banque islamique ñoom ñoo wax ne riba bi ñuy teg ci alal ji ñuy laaj moo leen daaneel ñoom seen bopp service de la ñoom ñoom yëfeer yi ñoo ko wax service de la ah dangay wax pour ñun ñu mujj ñun sii réew waaw dañuy am banque mondiale
gis nga ñoom seen bopp bu ñu waxee loolu kay ba jël li ne système mu islam bi mooy bu baax bi masaba ak ñun julli nii kon mbokk yi riba mu ngi noonu dafa xaram yàlla ne allazina gaa yi nga xam ne yaakul na ñooy lekk ar riba ndollent mooy ndollent dërëm ñaar dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm am na ñu koy def waxuma nekk ci banque yi mais ñu ngi ci marché yi soo indee 100 francs ne wecc ma ñu ne la 80 la ñoom ñu jël ñaata 10 francs yi soo indee 100 francs ne weccit laa bëgg xam nga marché yi day tar weccit ñu ne la 80 ñu jël ñu ñu dagg ci loolu dafa xaraam daganul te tey dafa fees dell yonente alayhi salaatu wasalaam laylatul isra wal miraj moo doon nettali mu ne marartu bi qawmin romb naa ay nit ca biir safara seen biir yaa ngi rëy ba toll ne ay néeg kullama araadu an yaquumu saqatu sa ay ñu bëggee jóg daanu wa qultu ya jibril man haula jibril ñii ñan la mu ne ko haula alladina yaakuluuna riba min ummatika mu ne ko ñii ñoo doon lekk riba ci sa xeet ñu ngi nii seen biir yi dañoo rëy ba toll ne ay néeg suñu bëggee jóg daanu riba baaxul yàlla ne allazina gaa yi nga xam ne yaaku na ñooy lekk ar riba ndollent laa yaquumuuna du ñu dekki ëllëg yowmal qiyaama du ñu jóg mukk mukk mukk min quburihim yowmal qiyaama du ñu dekki illaa lu dul kama yaquumu comme ni muy dekkee comme ni muy jógee allazi koo xam ne yataxabbatuhu daf ko laal asheytaanu sheytaana min al mas xam ngeen seytaane bu laalee nit seytaane bu jàppee nit bu seytaane dóoree nit nit ki nu muy mel tey kenn ñun bu ko seytaane pesoon su xëyee suba pour ñu xam ne kii seytaane da koo pes ku ko xool looy njëkk a seetlu gémmi ngi day mooy seytaane bu dóoree nit yenn saa yi loxo yi day ànd loxo tànk day ànd dee ak gémmiñ léegi nag waa jooju nga xam ne tànk bi yàqu na loxo bi yàqu su toogoon fii léegi bëgg a jóg nu muy jóge est-ce que moog yow yaay ne yéen a yem nu ngeen di jóge yàlla nee na nag ñiy lekk riba noonu lañ mel du ñu dekk ëllëg yow ma xiyaam lu dul comme ki nga xam ne yataxabatu daf ko dóor ay darabahu asheytaan darban seytaane moo ko dóor moo ko ngàdd kooku ni muy jógee dootul nuroo ak ki wér këng ni muy jógee léegi imaginel xoolal ñuy lekk riba waxuma la alaxira waaye fii ci àdduna balaa ñuy dee dañuy perte lépp lu ñu amoon lu tax kullu maalin nabata ala xaraamin fannaaru awlaa bihi bépp alal boo xam ne cosaan bi dafa xaraam yonent bi nee na safara moo ci yey ba pare man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salaat arbaina yawman xam ngeen lu tax riba riba garaaw mooy tey boo ci gañewoon boo jë boo ci jëndoon kilo ceeb sa jabar toggal la ko wala cere wala yàpp nga reer ba suur ñaata dank ñaata dank nga composé pour nga suur compté nga ko kan moo may jox benn nombre boo xam ne moo lay suural ay dank par exemple 40 dank xanaa war na suur nit 40 dank ceeb war na suur nit xoolal dank bu ci nekk 40 jours boo ko jullee yàlla du ko nangu dank bu nekk luqma la yonent bi wax luqma laa tuqbal lahu salaat arbaina yawman 40 jours man akala luqmatan benn dank bu xaraam 40 jours lañ la dul nangul kon 40 dank saakub ceeb bi nag kon bu dee daa araam bu diwlin bi araamee yére bi araam kër gi araam oto bi araam jàngeen xadis bi arbawuna nawawi yonent bi gis benn waay boo xamante ne mi ngi yëkkati ay loxoom as as kawar gaa ngi jaxasoo waajaa ngi pënd poussière mu naan yaa rabbi yaa rabbi ñu ne anna yustajaabu nuñ koy nangulee malbasu xaraam mashrabu xaraam mat amuhu xaraam li mu lekk dafa araam li mu naan dafa araam li mu sol dafa araam fi mu nekk dafa araam fa anna yustajaabu naka lañ koy nangule te mu ngi wax yaa rab yaa rab yaa rab yàlla mu ne kii li mu def lépp dafa xaram kenn du ko nangul kon lekk lu xaram baaxul rawatina riba yàlla mu ne ñooñu di lekk riba du ñu jóg yowmal qiyaam lu dul kama yataxabatuhu shaytaanu min al mas mi ngi mel ne benn waay boo xam ne seytaane def ko dóor seytaane def ko mbéj noonu ngeen koy gisee ci àdduna waa ji bul sax laajte su la rombee nga xam ne kii seytaane daf ko laal noonu la ñuy xàmmee waa ji yowmal qiyaamati bu dekkee ndax li mu doon lekk lu bon ni ko alal ji lu bon ji di def jàngeen alxuraan yàlla mu ne ñiy lekk lu ri ñiy lekk riba lan la ñuy lekk seen biir innama yakuna fi butunihim naaran kuy lekk lu xaraam yàlla nee na yaa ngi lekk safara mbokk yi ñun fii ku lekk safara waxuma la safara balaa mu yegg sa biir waaye est-ce que sa loxo yi rek waaye waxuma sa gémmiñ kon est-ce que nu mu yeggee ci biir lu tax yàlla mu ne zalika naka noonu bi annahum ñoom li tax ñuy lekk riba qaalu dañuy faral di wax ne innama albayu mithlu riba soo leen ne riba araam na ñu ne la moom jaay bi ngay def moog riba yam ndax da ngay dem nga jënd fukki dërëm nga jaay fukk ak juróom kon jaay ak riba moo yem gis nga li moo tax bépp xiyaas bu nit def te àndul ak texte da ngay indi sama problème xam ngeen li ma wax saa yoo defee xiyaas sa bopp te àndoog texte sharia da ngay àl ko loolu moo njëkk àl ak iblis iblis moo njëkk a def xiyaas fan la ko defee loolu ko ko wax de xanaa di nga am kaamil yow amoon nga benn léegi amoon nga benn bismillah keroog bañ ko waxee sujjóotal al aadama daa jëfandikoo xelam def qiyaas mu ne lan ana xayrun minhu maa ko gën mu dem jëfandikoo xelam maa ko gën au lieu mu xool ki ko jox ndigal ki ko ne defal mu def waaye dafa moom utiliser xelam gis nga nattal boppam ñii tamit di lekk riba soo leen ne riba araam na ñu ne la eh riba ak njaay ñooyam ah qaalu ñu ne innama albayu naka njaay mislu riba moog riba yam lu tax ndax da ngay jënde li jaayee li yàlla mu ne waaw waaye wa ahalla allahu albaya man yàlla maa daganal njaay wa harrama riba ma harama riba nga léegi leer na kon njaay ak riba du benn lu tax du benn yàlla moo ne kii jaay tëralal nii yonent bi leeral ko fuqaha yi wax ci moo tax bala ngay jaay aussi da ngay jàng fiq Omar da doon wax ne ku jàngul fiq warul jaay sama marché balaa ngay dugg ci riba waaw waroo xëy rek de ñu abal la cent mille rek nga nga dem daaj benn taabal commencé da nga war a laaj sart yi ba mu leer ba nga xam ko nga ngànnaayoo ko balaa ngay dugg ci riba lu tax wa ahalla llahu lbaya yàlla day subhanahu wa taala moo daganal njaay wa harrama yàlla araamal arriba ndolent mu ne faman képp koo xam ne jaahu dikki na ko fekk da doon jëfandikoo riba di ko lekk di ko leble di ko di ci di ci dund fa man képp koo xam ne jaahu dikke na ko mawizatun ak waar min rabbihi bu bàyyee koo ci boromam képp koo xam ne da nga doon jëfandikoo riba di ci dund di ci liggéey ba bis ab waarate ka dikkal la wala nga dégg wala ñu wax la waar la ba nga xam ne lii dafa xaraam gis nga loolu moo tax jullit bu déggee lu xaraam rek lu mu war a def waaw waay moo tax mu ne fa man jaahu mawizatu min rabbihi rek lu mu def lu mu ci teg waxul summa de fa rapidement foofu mu taxaw mu bàyyi fantaha mu arrêté taxaw moo tax jullit suñ ko nee dara araam na heure wax xaaral ma egg sama kër comme ñuy sénégalais li ñuy def li la araam ne xaar ba mu ràpp ma dindi ko ah lii démb laa ko lee tuddi nga bëgg ne araam na tey ah xaar ba ba ba mu kii ba mu ràpp inna lillahi wa inna ilayhi yow lii démb laa ko jënd nga bëgg ma ne dafa araam léegi nu may def ah xaaral tuuti kay xoolal ñun ñun jullit yi noonu la ñu mel amaa jullitu démb ñoom bu ñu leen ne araam na rek du ñu buuse yonent bi fekk na benn waay bu takk lam ci marché bi bi mu ne waa ji asalaamualeykum mu ne wa aleykum salaam wa rahmatullah mu xam ne jullit la mu jàpp ci lam bi waxu ko dindil la yonent bi moo jàpp ci lam bi xëcc ba loxo waa ji dereetal yonent bi sànni lam bi ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflahta abadan boo faatu woon li nekk sa loxo doo texe yonent bi woon waa ji ginnaaw nit ñi ñu ne ko jëlal salam jëlal jëlal mu ne leen maazallah yal na ma yàlla musal yonent bi tekki safara sama loxo ma koy tekkaat jàngeen alxuraan yaay aysa yàlla aysa nee na yal na yàlla yërëm jigéeni ansaar keroog ba ñu déggee yàlla ne jigéen dafa waratul def bopp ne nuñ def dañoo xotti seeni sër muur seeni bopp ña demoon marché waxuñu ba ma ñibbi ca marché ba lañ ko déggee muuru ña demoon ca teen ba rooti ca teen ba lañu root lañu lañu muuroo ñun nag ñun nag ndeysaan ndeysaan waaw keroog ba alquran wàccee yàlla mu ne innama alxamru wal maysir wal ansaabu wal azlaamu rijisun min amali shaytaan ba aaya bi egg fahal antum muntahun omar mu ne allahuma intahayna minhu ñun pare nañ ci keroog dañoo toj medina sàngara si dañoo toj ndaa yi daaneel bërigo yi tuur siwo yi borom xam-xam yi nee nañ bi naaj bi tàngee man a safara si jant bi ni mu tàppee ci sàngara si xeeñaay bi tasaaroo ñi naanul woon sax dañoo màndi ndax niñ ko tuuree ni mu bëree fépp luñ tuur mbedd yëpp luñ tuur sàngara si ñu ne pare nañ ci pare nañ ci pare nañ ci ñun nag ñun nag ñun ba léegi pare wuñ xam nga lu tax parce que ñële amul woon ñu leen assuré dugal leen aljanna ñun dafa am ñu ñu assuré dafa am waa joo xam ne mu ngi fi toog moom moom moom yow jox ko ci xaalis bi rek amul problème dina la dugal aljana jaayal sàngara bi waaw lekk riba bi moom bu ayee be ay jàngam rek da nga dem ci sa alalu riba boobu nga indi ci lu bëri nga jox ko amul problème yenn saa yi nga dégg fu ñu joxe ay millions dara riba bi kese lañ fa yóbbu léegi nag riba boobu ñu fa yóbbu pour ëllëg waa ji mu sol robe mu taxaw kanam yàlla mu wax ba kii doon lekk riba dugg aljanna wala kii nekkoon góor jigéen te doon indi xaalisam fii moom na na dugg aljanna wala nañ ko suuli foofu buñ ko suulee foofu foofu moom buñ fa suulee nit saye lu mu mën a def yàlla perte na ko day day taxee day taxee ndax suul nañ ko fii xoolal loolu doo mën a ñun duñu bàyyi ah armeel yoo xam ne kuñ fa suul da nga dugg aljana ak loo fa mën a indi foofu saye terminé inna lillahi wa inna ilayhi rajiun armeel yooyu di amul màkk amul amul Médine waaw amul Médine de te foofu moo gën ci pàkk yi ci suuf ah foofu moo fi gën ci àdduna bi mais armeel yooyu amu fa waxuma la armeel yooyu amu fa waaye yonente alayhi salaatu wasalaam nit dee na mu ñëw taxaw ci nit kooku moom moo ko sang moo ko sang moom moom yonent bi moo ko sang ku yonent bi sang lu ngeen ci xam tey jii ñun ñii fii bu ne woon kenn boo dee yonent bi ma yàlla na la sang allahu akbar loolu neex na de ñu ne diw bi mu dee yonent bi moo ko sang yemu ci de moo ko sang sang ndax moo ko solal yére yi yi ñuy def ku dee yemu sax dem jëndi marché waaye mantoom moom bu mu doon sol di jiite di julli la làng waa ji la sàng waa ji waa yemu ci de mu jullee ko ñett yooyu bu ko yonante defal yemu ci de mu ànd ak gaay ba ci armée li ñu gas ba mu xóot mu dugg ñu jox ko ko mu dugal waa ji mu génn ñu suul mu bugg ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm yàlla mu ne ko bul ñaan kii safara la jëm bul ñaan de astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum boo ko jégguloo wala nga bañ a jéggulu am na aaya bu mu ko ne boo jéggulu woon juróom-ñaar fukki yoon it boo toogoon fi di juróom-ñaar juróom-ñaar fukki yàlla du ko baal te attention ku mel nii bu deewatee bul taxaw ci bàmmeelam wala taqum ala qabrihi abadan ku mel nii bu deewatee bu bul sax bougé waxuma laa nag naan da ngay ñëw ci bàmmeel bi naan da ngay ñaan yonent bi la yàlla wax loolu ñun nag islaam danaan lii daa bon ñun ñëpp ñu xam ne loolu dafa bon nit dund ci ba dee ñu yóbbu ko suul ko fenn ñu tabax bàmmeel bi mu nekk wàllu yi ñu koy ziyaare ji nga gis nit day am fit dem ñëw ne la tey ziyaare ji woon naa diw te xam nga ne kooku ci lu bon la dee wala loolu amul Sénégal waaw mu nga mu nekk ni lekkatu riba yëpp kenn du bàyyi lekk riba kenn du bàyyi dajale bi ngay dajale riba doo ko bàyyi lu tax ndax foo ko yóbbu ñu jël waaw riba bi foo ko dajale jël ko yóbbu ko nit ñi jël ko kenn du leen ne lii baaxul jëlal jëlal jëlal jëlal inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban jëlal mu ko jël déedéet seen yoon nekku ci ñi dañuy dajale rek jël waaw nga dégg diw joxe na 3 millions parce que nee na ngeen jënd mokkatu jàkka ji déggoon naa fi benn waykat bu jëndaloon benn juma ay ay ay ay kii ah yéen a ko wax de ay kii rek laa wax ay kii ndeysaan lan ko waroon wax lan ko waroon wax jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal loolu lañ ko waroon wax ndeysaan ñëpp di ko ñaanal te xam nañ ne yonent bi lu mu wax kullu maalin nabata ala haramin fannaaru awlaa bi yonent bi lu mu wax inna allaha tayyibun laa yaqbalu bi nga xamante ne tey kenn du xool alal ji fu ñu ko jëlee ñun ñëpp dañoo sëgg rek ñëpp dañoo sëgg di lekk rek suñu yoon nekk ci waaw kenn du kenn ci ñun su doo bañ du alal bu bon loolu moo tax léegi li yonent bi waxoon ne riba dina tasaaroo ba ku ci lekkul di nga lekk ci pënd bi da ngay nekk fii léegi woor ba ngoon benn lekkatu riba ñoo jox la keesu tàndarma imaam nga ne ah mu ne la mun nga ndogoo li macha allah jërëjëf ay lekk ci riba bi la ko jëlee yow lekk nga ci poussière bi waaw noonu la tasaaroowee riba bi noonu la tasaaroowee ci biir dëkk bi néew na ku ci mucc nag riba baaxul borom bi subhaanahu wa taala mu ne képp koo xam ne faman képp koo xam ne jaahu dikke na ko mawizatun waar bu bàyyi ko ci boromam min rabbihi dañ ko waar ci yàlla yàlla nee na yonent bi nee na waa ji daal di tiit tuub bàyyi riba fantaha mu daytalu arrêté lépp lu mu ci doon def mu sànni ko falahu ma salaf falahu ñeel na ko ma salaf lépp lu mu amoon lépp lu mu amoon ci alal jooju araamoon démb mu doon liggéey xool yàlla kay ku baax la bu la ne woon bi nga xamee ne araam na rek bi nga bi ko yàlla teree rek daf ci pétrole nga taal ko mais boo bàyyee yàlla mu ne alal bu njëkk bi yow yaa ko moom falahu ma salaf ñeel na la waaye wa amruhu sa mbir wa amruhu mbiru waa jooju ilallah nañ ko bàyyeeg yàlla ndax da koy mbugal ëllëg ndax da koy baal ndax da koy nangul alal jooju après wala du ko nangul ndax lu mu ci def baax na wala baaxul fa amruhu ilallah kooku nañ ko bàyyeeg yàlla léegi yàlla moo mooy rek la ay mbiram waaw bu ci kenn kenn yoonam nekku ci diggante waa ji la ak yàlla subhanahu wa taala allahu akbar wa amruhu baada zalik mbiram ginnaaw loolu ila allah in shaa sabatahu ala tawba fa najaahu bu neexee yàlla mu saxal ko ci tuub bi mu tuub daal di ko koy nangul wa in shaa xasalahu bu neexee yàlla yàlla gàcceel ko li suu amalihi ndax jëfam ju ñaaw yi mu nekkee woon démb ak barki démb wa fasaadi niyatihi ak yéeneem bu bon bu mu daan yéene ci alal ji bu neexee yàlla subhanahu wa taala mu alak ko mu toroxal ko kon mbiru waa jooju fa amruhu ila allah mbiram nañ ko bàyyeeg yàlla waaye mu ne waman aada képp ku tuub ba pare toog cinq jours bénéfice amatul affaire yi commencé ñeer commencé dëgër commencé commencé waa ji daal ne ah waaye wax dëgg yàlla lii man mun ma koo bàyyee waa aada mu dellu ca riba ba encore fa ulaayika ñooñu tuuboon ba pare delluwaat asxaabu naari ñooy waa safara hum ñoom fiihaa ci biir safara xaaliduuna dañ fay sax éternellement dootuñu génn gis ngeen riba ci bàkkaar yi mag yi la bokk képp ku koy lekk ba dee bañ a tuub yàlla nee na yow safara nga jëm lii moo war a tax ñu dellu ginnaaw lii moo war a tax ñu tuub ku yàlla ne safara nga jëm wallahi safara nga jëm ku yàlla ne safara la jëm ku gëmul ne ko ku safara la jëm parce que gis nga muy ànd ak benn waaye nga yaakaar ne waa jooju mën na dara da ngay nax sa bopp waaw yàlla bu leen yaakaar ne fii nii waa Sénégal gëmee yàlla ne benn waaye mën na ñëw poñe ko ne ko kii dee dugg àjjana mu ne ko waa na dugg noonu ngeen gëm bëgg a gëmee loolu loolu du yàlla de suñu règle yi ñuy dundee fii amul àllaaxira fii ñun ñun ñoo ñun ñoo ñun ñooy tëral lu nu neex ñun ñooy wax lu nu neex ñun ñoo moom suñu àjjana ñun ñooy seet ku nu neex ñu dugal ko ñun ñooy génn ku nu neex waaye loolu eggul fële waaw waaw xam nga ñun waa Sénégal dañoo yor beneen loi beneen diine beneen diine lan yor yeneen diine yu bokkul ak lislaam bi yàlla jox yonent bi ñu yor suñu yeneen i mbiru bopp yu bokkul ak yi yàlla tëral yàlla day wax lii nga gis ku ñëw ne waaw boo yàlla waxee loolu it diw moom lii la wax waaw mel ne diw moom moom am na lu mu mën yàlla mu ne waman aada képp ku delluwaat ci lekk riba waman aada la wax waman aada képp ku delluwaat tuub ba pare dellu xam nga ko ku ñeme la ku am fit la yàlla tere dara nga bàyyi ñaari fan ñett ñeent juróom weer bu fekkee da nga daan dajalaay alalu riba sikk nekku ci ne alalu riba yooyu nga doon dagal boo boo bàyyee foog mu foog mu dëgër da nga doon napp nit ñi di lekk seen alal tuub nga il faut mu metti léegi nag metti boobu yow munoo koo muñ ba nga dem delluwaat ci riba bi yàlla mu ne fa ulaayika ñooñu ashaabu naari ñooy waa safara ku bëgg a xam ku bëgg a xam waa safara rek borom bi subhanahu wa taala nee na xoolal ñooñu mu ne hum ñoom fiiha ci biir safara xaaliduna way sax lañ fa léeg-léeg ma wax leen ne bu ñuy bu ñuy bu ñuy fàttalante dars yi fii nañu bàyyi xel ay fu muy jeexee bu yàlla ne ñii safara la ñuy dugg dootu ñu génnaat lu ci lu ci lu ci xel nangu luñ ci war a xalaat est-ce que safara dafa neex mbokk yi est-ce que safara dafa sedd est-ce que safara dafa yomb bu yàlla nee nag ñii dañ fay dugg dóor xaalidiina fiha dañ fay sax kon ku nekkoon ci loolu war a bàyyi lii ku nekkoon ci loolu war koo bàyyi ndax boo ko bàyyul boo dee yàlla moom li mu wax mooy dëgg waxam moom du deñ safar nga jëm borom bi subhanahu wa taala mu ne yamxaqu llahu riba yàlla day màbb riba yàlla da ko fiy jële yamxaqu llahu yàlla dina màbb ar riba ndollant allahu akbar lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy yàlla dina ko fi jële yuzhibuhu shay'an fa shay'an hatta la yabqa minhu shay'un boo yoroon ay milliards ci riba yàlla dina koy dindi di ko ŋeeñ di ko dindi di ko dagg ndànk par ndànk xam ngeen misaal bi mooy lan comme weer wi bu demee ba nekk badr bu weer wi nekkee badr ci kaw asamaan si nu muy toll day fees dell ron waaye saa yu ñu xëyee muy wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku day delluwaat di delluwaat gis ngeen wàññeeku wàññeeku boobu noonu la yàlla di def riba lu mu bari bari bari bari bari bari ah xoolal fii rek xamoon nga ay nit démb yoo xam ne ci Sénégal dañ doon lekk riba fu ñu mujj ñu daanu ba amatuñu kër gu ñu dëkk banque ñëw nangu seen kër yi fu ñu mujj feebar ba mënatuñu faj seen bopp mën na tudd fii léegi ay tur moo tax riba baaxul yàlla daf koy daaneel ndax yàlla moo ko wax yamxaqullahu riba yàlla day màbb riba da ko fi jëlee riba amul barke bu yàlla jëlee riba lu muy def mu ne way yurbi sadaqaat yàlla day yar day duufal as sadaqaat sarax gis nga kon au lieu ngay lekk riba au lieu ngay dunde riba nga lawaay amal yërmande loolu nga nar a teg riba am na benn waay boo xam ne jàngeen ci xadis baal gi mu doon baal ñi mu doon lebal moo tax yàlla dugal ko aljanna dafa yoroon ay nit su lebalee ba weer dee mu ne mu ne xaleem yi fayeeku dem leen ku ngeen fekk amul ne leen jéggal naa ko bi mu faatoo yàlla da kaawoo ba mu ñëw yàlla mu ne ko da nga doon baax li tax nga doon def loolu mooy da ngaa bëggoon baax li nga xam ne maa la gën a baax demal baal naa la arrahimuna yarhamuhum rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ñii yërëmaate yàlla da leen di yërëm yërëm leen ñi ci kaw suuf waa asamaan yërëm leen au lieu ngay ngay ngay ngay ngay ngay lekk riba teg nit ñi lu ñu àttanut yow waa ji nga bëgg a fayeeku nangam xam nga ni munu ko doo ko baal nga jéggal ko waaye doo def loolu dama waroon fay 5000 amoo 5000 bi kon nañ ko doubler nañ ko def 10000 wala nañ ko def 15000 bu weer ba deewaatee nga yokkaat ko bu weer bi deewaatee nga yokkaat ko riba boobu xam ngeen dee ngeen li mooy ben des na beneen riba beneen riba bi moo tudd riba al fadl mooy ban
am naa kilo gerte ma lebal la kilo gerte ma ne la boo may fay nga yow nga fay ma ma teg la charte ne danga may tegal par exemple su ma la joxee saaku gerte waaw gerte laa la jox soo may fay fay ma dugub ak genn wàll ak genn wàll sax nga fay ma ñaari saaku gerte benn gee saaku la woon nga fay ma ñaari saaku saaku ceeb la woon nga fay ma ñaari saaku ñetti saaku loolu daa war a am saabu ceeb booy fay ñaar ñaar saabu ngay fay.
loolu dafa aram aram na ci ku jël aram na ci ko lebale ñoom ñaar ñëpp dafa aram ci ñoom boo jëlee junni mu nga fay sept mille euros.
loolu dafa xaram mbokk yi islaam daf ko tere borom bi subhanahu wa taala mu ne wa yurbi sadaqaat yàlla mooy duufal mooy yar sarax wala sarax yubaariku fil maal allazi uxrijat minhu bépp alal joo xam ne dañ ciy génn sarax di ko saraxe yàlla daf koy barkeel ma naqasat sadaqatun min maal yàlla nee na sarax bi ñuy génnee ci alal ji di ko saraxe alal jooju manqué wul de kii saraxe semaine bële passé bi ñuy jàng wa anfiqu fi sabilillah waxoon nañ kii saraxe mi ngi mel ne ku daaj benn keesu condamné tey boo daajoon benn keesu condamné bés bu nekk nga dugal ci 1000 francs bés bu nekk nga dugal ci 1000 francs est-ce que sa xel day dem ci 1000 francs yi ngay dugal fii perte nga ko sa xel ci lu muy nekk
yaa ngi lay sept mille.
yaa ngi am xaalis yaa ngi denc yaa ngi jël sa alal di jox yàlla li nga jox yàlla kay moo gën a wóor ak li nga dugal ci kees gi wala wala kii joxe joxul kii de wax nañ keroog ne kii saraxe bi mu génnee sarax bi ci loxoom balaa sarax bi di egg ci loxo ki muy jox kan la njëkk a jox sarax bi yàlla bi nga génnee sarax bi am yéene ne yaa ngi saraxe balaa sarax bi di egsi ci loxo ki nga ko jox yaa ngi ko njëkk a teg ci loxo yàlla ba pare parce que li tax nga génnee sarax bi kan la loolu moo tax sarax yàlla daf ci def barke mu ne moom allahu subhanahu wa taala wa yurbi sadaqat yàlla day duufal day barkeel sarax wallahu yàlla subhanahu wa taala laa yuhibbu bëggul kulla kafaarin képp ku bëri bakkaar aasim bakkaarkat aasim ku fees dell ne gàññ al kuffaar sadidul kufr loolu mooy kuffaar mooy koo xam ne taram jéggi na dayo ci weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla bëggul kooku yu kaffiru bi kulli xaq bépp dëgg daf koy weddi bépp dëgg da koy sànni ca xaj loolu suñu borom subhanahu wa taala bëggul ku mel noonu Euh, dina doy rek ñu taxaw tuuti wallahu la yuhibbu yàlla bëggul ku yàlla bëggul ku la bëgg amul njëriñ Hmm? kan ci ñun fii yenn saa yi sax benn waaye ñu ne ko yow xale bu jigéen bi nga bëgg a takk de bëggu la nga ñëw mu ne la yow bëgguma la dañ maa bëgg a forcer bëgguma la loo koy wax bëgguma wala bëgguma sa yaay wala mu ne la bëgguma sa baay bëgguma leen yéen seen famille ku la wax loolu après yow looy def léegi yàlla mu ne man waaju mel ni bëgguma ko ñun ñu ne fal force yàlla dina ko bëgg ah yéen tamit yàlla mu ne ku mel nii borom bàkkaar yu bari bëgguma ko kafaar koo xam ne lu mu gis weddi bëgguma ko man yàlla kon loolu noonu war ñu fexe yàlla bëgguñu gis nga yàlla bi mu weddee kii am na ñeneen ñu mu bëgg da ngay jàng alxuraan ay aaya ñu ne la ñii yàlla da leen a bëgg man de sama portable yi dama leen fayoon xamul leen taal da ngay jàng ñu ne yàlla subhanahu wa taala bëggul ñii kon ku yàlla bëggul ku jàng lii ñu ne yàlla bëggul ku mel nii lu la war fekkoon na yow yaa ngi mel noonu nga jéem a bàyyi loolu wallahu yàlla laa yuhibbu bëggul kulla képp koo xam ne kafaar aji weddikat nga loo gis weddi ko ci nga dëkk lépp lu la wax nga weddi a athim ku bëri bakkaar yàlla bëggu ko subhanahu wa taala kon bu yàlla bëggul ku mel nii koo xam ne asim mun xamis dafa nuur fi zunubi ci ay bakkaar laa yatruku kabir wala saxir illa irtakabaha irtakabatha du bàyyi bakkaar bu ndaw du bàyyi bakkaar bu mag day rajaxe rek mel ne oto bu amul frein bu dugg ci manding ku mel noonu yàlla nee na bëgguma ko koo xam ne lu ko neex def tey loolu moo am Sénégal ay nit ñoo xam ne lu leen neex def lu leen neex def wax naa ko li tax nag nit ñi lu leen neex def mooy dafa am ñu nekk seen ginnaaw assuré leen aljanna loolu rek moo tax Sénégal mooy yàlla gi yomb kenn bëggatul baax lu tax parce que am na ku nekk fee koo xam ne moom weer wu nekk loo dajale rek boo demee def noonu labbe yi doon def doon def église bi doon def boo mooyee yàlla rek da ngay ñëw pap bi daal di raay sa bopp daal lay sexal benn benn tàngal ne la baal nañ la sa bàkkaar nga dem loolu mu am loolu mu am suñu diine bi di waaw yenn saa yi nga dégg ay jàng yoo xamante ne sëriñ bi day jël micro bi day yéen ñi fi teew ñëpp ñu ne ah ñu ne baal na leen seen bàkkaar yéen ñëpp wala déggu leen ko déedéet déedéet déedéet bu leen weddi te wax leen dëgg bi fii doo kala garɗo doo yaa faama wala wonaa noon mbiya to fii ku fi ñëw baal nañ la loolu dafa am sax màkk waaye yéen yéen Sénégal ñaan na de ku fi ñëw rek baal nan la ku fi ñëw rek même boo julliwul sax xanaa boog xanaa war nañ ji fii inna lillahi wa inna ilayhi ah ku ñëw rek baal nañ ko loolu de moom lañ gars yi di wax fii man de dama koy dégg ku dégg bëccëg dama koy dégg ak sama nopp bii xaw ma yéen nag dama koy dégg ci làkk yi ma dégg dama ko ciy dégg dama koy dégg ci olof di ko dégg ci tukulóor waaw loolu nag église la amoon église bi ñoo doon naxaate waaw léegi nag loolu dafa am ci ñun waaw da ngay gis koo xam ne moom nee nañ ko baal nañ ko kan moo ko ne baal na ko kan benn saxaaba dane woon yonent bi yonent bi alayhi salaam dafa xool benn saxaaba bu mu doon àndal ba ci àgg rek mu ne ko waxal loo bëgg ma ma defal la ko allahu akbar xoola yonent bi mu ne nit waxal loo bëgg ma defal la ko waxal loo bëgg waa ji mu ne yonent bi asaluka murafaqatuka fil janna allahu akbar ñun tey bu ñu président Macky Sall waxoon waxal loo bëgg ma defal la maza naqulu man de wax dëgg yàlla damaa bëgg 4 4 ak kër fan résidence loolu ngay njëkk a wax ndax man damay luwe aw ma kër nangam nangam dafa àdduna rek xoola saxaaba yonent bi ne ko loo bëgg loo bëgg est-ce que bu waxoon xaalis yonent bu ko ñaanalee du am xaalis yaa ngeen histoire saalaba saalaba bi ko yonent bi ñaanalee lu mujj nekk multimilliardaire ba mënatul dëkk Medina mu toxu mënatul dëkk Medina mu toxu mu dem ci dëkk bi ci ginnaaw dëkk bi xejul foofu mu toxu ndax alal bi nu mu baree kii yonent bi mu ko ne waxal loo bëgg mu ne ko asaluka murafaqatuka fil janna dama bëgg ànd ak yow aljanna yonent ne ko sii waxal leneen loolu mënuma ko waxal leneen mu ne man yonent bi loolu rek laa bëgg bëgguma leneen ànd ak yow aljanna rek yonent bi ne ko a inni ala nafsika bi kasrati sujud ah comme àjjana nga bëgg nag mu ne ah mu ne ko del julli lu bari dimbali ma ngay julli lu bari dimbali ma ngay julli lu bari gis nga ci lu ba ci lu baax la ko teg fii nag yonent bi moo noon na ko wax ne loo bëgg mu ne aljanna mu ne dama nga dama nga tëdd dama nga tëdd tëddal dama nga tëddi demal yow dama nga tëdd waaye xool da ko ne jullil fii nag ñu ne ku teew rek dem nga aljanna moo tax kenn du góorgóorlu Sénégal yàlla mu ne inna allazina gaa ñi nga xam ne amanu gëm nañu gis ngeen kiñ doon jàngal danaan inna allazina joo gis amanu topp ci ñooñu seeni borom texe nanu allahumma ij'alna minhum waaw inna lazina gaa yi nga xam ne amanu dañoo gëm gis ngeen gëm al iman wa amilu saalihaat ñu taxaw ci jëf lan jëf ju baax as saalihaat wa amilu la yàlla wax te ngolli dañoo liggéey wa amilu yamuñu rek ci aman naa daal di noppi waaye wa amilu dañoo liggéey lan as-saalihaat wa aqaamu salaata dañoo taxawal julli wa aatu zakaata dañoo joxe azaka gis ngeen yàlla mu ne ñii lahum am nañ ajruhum seen fay inda rabbihim mu bàyyi ko ci seen borom seen borom dina leen fay ëllëg yàlla moom ku mu liggéey loo fay la kenn du liggéey comme ni gars yi di wax yàlla du lakk kenn yowmal qiyaam yàlla day dugal ñëpp aljanna bon gars yi dañuy sóob dañuy wax déedéet yàlla ñi mu liggéeyloo lay fay yàlla ñi mu liggéeyloo fay la subhanahu wa taala iblis sax bi ko yàlla liggéeyloo yàlla fay na ko ñi comme dañoo liggéey dañoo gëm yàlla taxaw ci liggéey julli joxe azaka yàlla mu ne lahum ajruhum inda rabbihim yàlla ne dinaa leen fay kañ bis bi nga xam ne ñëpp dañuy soxla fay wala xawfun alayhim ñii tiitaange jeex na ci ñoom ñii dootuñu tiit wala xawfun alayhim wala hum yahzanun duñu tiit duñu jàq duñu tiit fii ci àdduna ëllëg àllaaxira bu ñu dekkee duñu jàq ñii am nañ assurance kon liggéeyal yàlla moo am solo ñii lan moo tax yàlla assuré leen yàlla ne dinaa leen fay benn ba pare mu ne wala xawfun alayhim ñii duñu tiit même bu nu gisoon àdduna bi yëpp musiba di fi ñëw wala am jafe-jafe ñoom duñu tiit jàng ngeen histoire góor gi dafa ànd ak ay xale ci biir géej ci biir gaal gaar gi laa di màbb ñëpp di yuuxu nit ñi di lab ñii di dee ñu seen góor gi mu toog ci benn bant ci gaal gi di jàpp di jàpp bi ko yàlla sauvé génne ko ci tefes bi ñi rëccoon ak ñi doon seetaan ne ko yow yow gaal gi daanu ku nekk di ut ci bant bu mu jàpp pour rëcc yow nga toog di jàpp mu ne dama doon préparé dajeek yàlla fekk bu may dem ci yàlla maa ngi laab bu ma yóbbaale sobe xam nga ne ku nekk ci biir gaal bato bu këpp waa ji toog ci biir géej gi di jàpp est-ce que kooku dafa tiit wala xawfun alayhim du ñu tiit dégg ngeen imaam ali bi ñu ko jamee dafa rocci paaka biñ ko jam daan ne fuztu wa rabbil kaaba kooku tiitul wala xawfun alayhim ñooñ duñu tiit waaye wala hum yahzanuun ëllëg àllaaxira bu ñu dekkee li mbir yi di rëb li tàngaay bi métti nit ñi li ñuy bari njàqare kanam yu ñëkk yi bët yu buqeeku yi jàng ngeen ko hal ataaka hadisul xaasiya wujuhun yawma idin ñii moom wala hum yahzanuuna ñii duñu jàq mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala lii moo doon darsa tey li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo li ci manqué ci ñun la ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh